bon gis naa ni ñaa ngi voté dans le calme dans la sérénité waaye nag y' a pas une très grande affluence donc loolu lañ constaté alhamdulilah ñun voté nañ ci jàmm ak salaam maa ngi ñaan askan wi ñu génn voté ndax dafa am solo citoyen da nga war a voté suñuy tànn koo xam ne ne moom la ñu war a jiital ci dëkk bi pour mu doxal toll ci juróomi at loolu caaxaan juróomi at du juróomi fan donc maa ngi ñaan na ñëpp génn rawatina sama mbokk jeunes yi ndax nag. dëkk bi moom c' est leur avenir qui est en jeu donc na jeunes yëpp génn dem voté ji et au moment du vote ñu def le bon choix ñu voté Kaolack Dangar. waaw wees nañ am yaakaar ndax euh, lu ñu war def nañ ko depuis des années ñoo ngi ci terrain bi def nañ suñu programme wax nañ ko Kaolack waa yëpp waxtaan nañ nit ñi sensibiliser nañ leen donc suñu message jàll na. on a parlé jeunes waxtaan nañu ak ñoom waxtaan ak mag ñi donc daal am nañ yaakaar rappelé nañ nit ñi technique de vote bi am nañ yaakaar bu baax même si même si suñu victoire xam naa lu ko nar a wàññi parce que victoire day am incha allah lu ko nara a ñi mooy suñ carte électeur yi nga xam ne ne jeunes yi waroon na ko jot jotuñu ko ma koy ñaawlu nag xaw fan la situé wo mais lu lu may ñaawlu la. ndax nit ñi mun ñu leen dajale sonn ci ñoom dajale leen sensibiliser dem bind leen ñu war a jël seen carte électeur ñu bloqué ko xaw ma fan la blocage bi nekk mais lu lu ñuy ñaawlu la. ah lépp ngi ci parce que ñu def nañ lu ñu war a def ci sur te askan wi ñu bëri jotuñu seen carte kon am na koo xam ne def lu mu war a def fu mu nekk war nañu situer responsabilité bi ñu ngi koy ñaawlu Sénégal war na weesu fii. comme par pur hasard dëkk yi nga xam ne ne c'est pas favorable à la coalition qui est ñoom ñoo jotu seen carte loolu lu ñu ñaawlu la. xaw ma nag tomb bi war ay gaf waaye fii ci Kaolack ndàngaan suñ ko waxee suñ ko waxut askan wi changement lañ bëgg askan wi ànd la lañ wax